foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yéenekaay bi ne muy Élysée wala kee dox saay amul kenn ci ñoom koo xam ne rek yëkkati na ci benn kàddu nag ngir tontu Ousmane Sonko mi ñu jàpp ne nag ay provocation la doon def jëmale ko ci kaw njiital France ba tey ci yëglekaay bi di réew mi quotidien docteur Macoumba Diouf mi nga xam ne rek moo nekkoon ganuk émission Grand Oral ma ngay àddu jëmale nag ci urgence yi nga xam ne rek moom la ñu war def jëm ci wàllu autosuffisance alimentaire expert en sciences agricoles nekk itam ancien directeur bu ISRA ma ngay xam ne nag li gën am solo bokk na ci liggéey réaliser nag loolee ñu dippee wàllu souveraineté alimentaire Sud Quotidien addu jëmale tey jii nag ci lu jëm ci wàllu mbay mii nga xam ne rek njiitu réew mi jàpp na ne nag ci lañ mën a tënkoo ngir mën a ci ay priorité ma ci biir yëglekaay bi nag ma ngay xam ne ne ci mandaawam bii a yóbbu Sénégal ci lu jëm ci wàllu souveraineté alimentaire du ñu yem rek ci renforcer wàllu investissement yi nag waaye daañu doxal lu jëm ci wàllu bonne gouvernance jaarale ko ci système yépp nag ngir ay résultat mën a am mënuñoo yegg ci souveraineté fileeg ñu ngi jëfandikoo loo xam ne rek dañu koy jéggaan ca biti réew li ñu ko mën a may rek mooy ñu daal fexee bayal suñu bopp loo xam ne rek dañu ko mooy rek duñu jug mukk ci ay jafe-jafe vox populi àddu bi nga xam ne rek na mën nañ koo amal ci wàllu salaire yi nga xam ne rek moo soxal wàllu fonction publique bi le quotidien yëglekaay ne état civil ak lu jëm ci wàllu rémunération ñeel fonction publique bi Ousmane Sonko bëgg na caa indi ay ordre ca conseil interministériel bi nga xam ne loolu lu jëm ci examen concours nag àdduna jëmale ci yeesal yi nga xam ne rek bëgg na koo indi ci wàllum njàng meeg jàngale mii waaye ca ndaje moomee nga xam ne rek amal nañu ko moom jiital gouvernement bu Sénégal Ousmane Sonko nag ma ngay xam ne taxawaay gi nga xam ne rek bëgg na koo am ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu fraude ñeel document yu état waaye tamit nag bëgg naa indi dal ak jàmm ci système de rémunération yi nga xam ne rek moo soxal wàllu fonction publique bi la Soleil yëglekaay àddu jëmale nag ci promotion bi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu jàmm ak dal ci wàllum justice bi yéenekaay bi dellu dellu ci woote bi nga xam ne rek monseigneur Benjamin Ndiaye ma ngi koy woo nag ci ab messe de Pentecôte boo xam ne rek amal nañu ko foofee ci Popenguine ci teewaayu ay junniy junniy pèlerin nag ci la ay kàddu ngir soññ nag ñi nga xam ne rek ñoo di gouvernement bu Sénégal njiitu mi di président Bassirou Diomaye Faye yéenekaay bi di xam ne nag ne fas yéene naa yeggali lépp loo xam ne rek mooy ba ñu sumb ca sanctuaire ba nekk foofee ca Popenguine l'info yëglekaay xëyee wàllu dundu gu cher gi ak lu jëm nag ci wàllu jàmm wàllu justice ak wàllu politique mu ne monseigneur Benjamin Ndiaye Ndiaye nag ma nga cee woo kilifa yu Sénégal ngir ñu gën caa bàyyi xel monseigneur Benjamin Ndiaye nag di xam le ne engagement politique nag dañu ko war a orienté nag ci lépp loo xam ne rek mooy jur jàmm ak ci biir askan wi nag waaye ma ngay woo gouvernement bu Sénégal ngir ñu jël seen ay matukaay nag ngir mën a soulager ménage yi nga xam ne rek dañuy jàmbat wàllu dund gu cher gi nag waaye teg ay jéego itam ngir mën a orienté waat ndaw yi nga xam ne rek dañoo nekk ci yoonu sànku lu jëm ci wàllu jàmm ak wàllu justice ci réew Sénégal nag monseigneur ma ngay xam ne nag ne faaw rek ñu daal di jàmm jàppalante ci suñu biir kenn ku nekk nag jàppee moromam ci ay jikkoom te loolee li ñu ko mën a may bokk na ci ñu daal soppi suñuy comportement ak suñuy mentalité le quotidien ak lekaay addu jëmale ci leneen mu soxal nag wàllum patrimoine bu état bu Sénégal yéene bi ne Ousmane Sonko jamono ji nag moo des ci liggéey ba ginnaaw bi nga xam ne rek waa SOGEPA daal di nañu koy jébbal ab bilan boo xam ne rek dafa jëm ci wàllum concession yi ñeel kaay àddu jëmale nag ci wàllu magistrature bi nga xam ne rek boo moytuwulee dina am ay yëngu-yëngu yiñ ca nemmeeku Abdou Karim Diop ak Ibrahima Bakhoum jamono ji nag ñu ngi ci guddi gu bët setagul kan moo war a wuutu nag kii di Ali Ba ca bopp cour suprême le témoin mooy xëyee niki tey jii nag yeesal yi nga xam ne rek bëgg nañ ko indi ci wàllu jàng jàngale mi nag yéenekaay bi ne Ousmane Sonko ma ngay teg école bi yees syndicat d'enseignants yi nag ña ngay tàccoog ñaari loxo nag ginnaaw fukki mesure ak juróom yi nga xam ne rek élimaanu jëwriñ bu Sénégal taxawal na ko jamono ji le soleil yëglekaay ne lu jëm organisation bu mucc ayib ñeel concours ak examen yi nga xam ne rek moom moo soxal atum 2024 yéenekaay bi ne Ousmane Sonko kay ma ngay jël ay mesure am laas yëglekaay xëyee tey ji nag teg loxo bu njëkk bi nga xam ne rek amal nañu ko ci nguurug président Bassirou Diomaye Faye kii di Bah Diakhaté nag teg nañu ko loxo ginnaaw bi mu yëkkatee ay kàddu nag jëmale ko ci élimaanu jëwriñ bu Sénégal Les Échos yëglekaay ko ne kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci kaw Ousmane Sonko moom Bah Diakhaté ko loxo démb nag jamono ji ña ngay wër kii